day torlu à des moments historiques di seetaan les patriotes tv dal leen jàmm ci xibaar li gën a fës ci xibaar yi nag ñu daal di ko déglu léegi-léegi mu doon benn nouvelle bu doy waar ki nga xamante ne moom moo di Salif Sadio ñu gënoon koo xam benn rebelle bu mag a mag a fële sa euh, Casamance ba tax nag euh, militaire yu Sénégal yi façon opération ba ne daanaka def nañ ko foofu suñu naataango yi di Walf Fadjri ñoo ñuy confirmer kat ki nga xamante ni moom moo di Salif Sadio dafa daal di génn li nga xamante ne moom moo di àdduna donc nag ñuy xaar na ndiki li nga xamante ni moom moo di communi communiqué bi nga xamante ne yaakaar naa ne arne bi dina ko daal di génnee su ko defee daal affaire yi leer ñaañi mu doon am benn confirmation boo xam ne ñëpp dinañ yëg ne ki nga xamante ne moom moo di Salif Sadio daal nii a gaañu ba tax nu dem si li nga xamante ne moom moo di Ousmane Sonko nag daal dina génn li nga xamante ne moom moo di këram tey si ay 17 heures wala 19 heures daal di jël li nga xamante ne moo di oto dem Ousmane Sonko ba tax ñuy samp ab laaj Ousmane Sonko fan la dem Dakar ngir teewee li nga xamante ne moom moo di procès bi wala Ousmane Sonko dafa dem feneen ba tax ak lu si mënte amaan rek dinañ ñëw andi leen si ay leeral yu leer nañu si ndeeg ak si ba tax loolu nag ñu leen di fàttali ne procès Ousmane Sonko Adji Sarr bi daanaka suba la ñu xam nag fan la dëgg ji fan la verdict bi daal di féetee ba tax nag Ousmane Sonko mi nga xamante ne daan na waxoon ne kat wuyooti li nga xamante ne moom moo di yoon wala tax tegal na leen ab condition su doonee dafay wuyu tamit foog ñu garantil na ko di nga am benn sécurité bu mot sëkk ba kenn du ko sax saaxee comme nañ ko daal di defoon ci li nga xamante ni moom moo di procès diggante moom ak Mame Mbaye Niang ba tax na loolu kat Ousmane Sonko daal dina jël otoom dem na fan la dem ndax Dakar lay ñëw teeree ci procès bi ndax Ousmane Sonko dafa dem feneen ak lu ci munte am rek dina ñëw an leen lu leer leer ci njëkk ak ci teraanga ñu ngi leen di jaajëfal lu baax te leen wax neen gën di woy di abonné di partager di commenter jaa ngeen jëf